salaamaaleykum. waaw ko salaam. ça va père na def. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. naa ko xalaat ko xalaat. ana du. kat du du nekk fi booy dama nga ñibbi dama ñibbi dama dama dama. Abdou. kat Abdou men. booy Abdou day nelaw booy leen si wër di wayaan gi yéen booy yéen booy dañu leen a jubut du naaj wu tàng wii ngay xëbër xëbër di ah sol sa jigéen wii yow lan la lan moo la métti eh Abdou day nelaw xool maa ngi koy yee sax. man la fils de Ndiaga Euro. Ndiaga Euro man man la fils de game Euro bala ngay fil kam gém ñu jàmbur da nga xam la muy wëlis bi waa looy oui ki mooy naan su ma yàlla bëggee na ma bàyyi borom Euro Ndiaga c'est moi yow la xaaral indi photo dégg nga kër comme comme yow euh, doomi kii nga euro te ñun ay doomi kii lañ dalaseeg un troti ay doomi dalasi la ñëw mais sinon ugu ya sinon ça va sant yàlla yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax mais doomu man dama ko mën a gis nii nii non du du xanaa ñu patiente tuuti rek da ngay patiente tuuti rek parce que day nelaw day dóor te yeewu waaw mais yow dëkkantaan njaga euro moo la jur man maa caatam ah maa caata euro day caan man daal ñu am ñi dañ maa jaaxal yéen daal seen am-am du feeñ fenn fenn ci yéen. oui loolu la nag parce que àdduna bu ñu la gisee nga yor fés. Hmm. fët fët dañ lay damm. faaw nga yor toog nootul. Eh, yow mii doo gone de yow mii yow est-ce que magoo sa papa yow mii nga wala yoon wi dawee dañ lay damm ak yooyu <laughs> waxi mag <laughs> yooyu ah ndeysaan. mais sinon ça va sant alhamdulilah. sa verre baax na. ah bu ñëw xam rek xaar naa bi ñëw ko. ok ok. mais am nga compte par cœur. lan. compte bancaire. compte bancaire. waaw déedéet déedéet aw ma ko de. aw ma may la xaas tamit. ah wóorul damay bañ banque yi daanu nga ñàkk. non non compte bancaire laa wax. ah compte bancaire. oui condamné. ba ma condamné de dama laa bëggoon a may xaalis dama bëggoon bu fekkee am nga compte bancaire ma may la xaalis. waaw jox ma man dinaa wut condamné def ko ci. loolu kay du du du benn souci. man xaalis du ma ko génnaale ci mbedd nii quoi. waaw yaa ma gën a xam. noo koy def. sama compte lay nekk. yow bu fekkoon da nga am compte bancaire ma may la xaalis. ah nga def ay yooyu noonu kon yow mënoo maa jox ni non ma laa jox ni tamit a nga am compte bancaire ma doog laa may. Hmm. mais saa moom xam naa fi mu toll est-ce que booy day nelaw day gën ma la hmm. ay ko nelaw.